ndax moom mooy al imaam al xaqiqi ñun ñooy day teel ba ñuy déglu ndigal rek balaa ñu koy jox kàddu gi mu teg ci lim ci teg ba tey ci ndigalam ñu wutu ko ci fàttali mbokki jullit yi ñi fi teew ku ko dégg ku ne rek lu ci bisu tey bii ak bis yu màgg yii mu toll ngir ku ko yàlla fekkelooti mu bañ leen a sàggane bu leen musta sàggane it mu yokk jëfam kem kàttanam fan yi ñu toll di fan fukk yu jëkk ci tabaski te tey mujj ci yal nañ ko yàgg ak teewe te di ci jaamu yàlla fan la yoo xam ne ñu yàlla bëggee ñun jaamu moo ko ci jaamu moo raw ñu mu ko bëggee ci yeneen fan lu mu mënti doon ak doonte ne ci fan yépp la ko bëgg amul yenn fan ñu bëgg ko ko ci moy ni ko ñëpp xam ñu mën cee gise ne loolu mooy ku ne ci ñun lim daa def ci topp ndigalam ak moytu tereem ak ñu mën toll bu fan yi dikkee daa war a jéem mu yokk bisu tey bii nag mujj ci te ràññu ci lool gën ji bisi at mi yépp kenn mënu ci ref lu ko gënal gannaaw faratee juróom wut ci tabaski ñoo xam ne sarti tabaski daje na ci tabaski am na hadis bu ci wax waamee na ko loolu tamit dikk na ci yenn si xaax yi tirmidi yi andi na ko ak ibnu maaja mu di ma amila aadamiyun min amalin yowma nahri ahaba ila allah min ihraqi dam innaha la tati yowma alqiyamati bi quruniha wa ashnaaiha wa adlaafiha wa inna dama la yaqacu min allah bi makanin qabla an yaqaca min al ardi fatiibu biha nafsa وربما هنالك اختلاف بسيط في اللفظ مثل ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ومثل لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل, بمكان قبل أن يقع على الأرض بدلا مما ذكرت في بداية ونهاية الحديث bii mooy wax ci bisu tabaski bi bii wax ci nga leen fukki fan yépp nag te ñaar ñi ma tudd andi ko Bayhaqi it andi ko mooy maa min ayaamin ahabu ila allahi an yutaabada lahu fiha min ashri dilhijja yaadilu siyaamu kulli yawmin min hadi siyaami sana wa qiyaamu kulli laylatin minha bi qiyaami laylati alqadr Buxaari moom andi ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل أو إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء mu ne amul yenn fan yoo xam ne yàlla bëgg na ko ci def lu baax lu raw ñun bëgg bu ko def lu baax ci fan yi jublu ci fukki fan yi mu ne ko yonente bi yàlla bi ba ci jihaad sax ci yoon yàlla jihaad ci yoon yàlla sax li muy rëy rëy nit ñi ci am lu ci def lu baax ci fan yi mu daa mu ne ba ci jihaad yàlla ba mu des rek genn waaye boo génn jihaad ak bakkanam ak alam ak alalam ak del siwa te del siwatul ak dara ci yooyu bakkanam des fa alalam des fa kooku rek mooy ki mën def lu baax ci fan bu teg fan yi man ci am lu toll ki def lu baax ci fan yi dana ko ci am kon jullit bu ne war nañu war nañu yàlla fekke leen at yu bari te saa bu dikkee mu góorgóorlu ci jëf-jëf yu baax góorgóorlu yëpp ci moytu safaan bañ leen di jaxase yàlla tere nag di yem ci safaan moom it des koy ful waaju ci jëmmi tabaski bi nag bu amul ayib ju fees rek rawatina ju bokk ca ñeent ayib ya ca xadiisu albara dal na doy insha allah ñeent ayib ya ñooy soox pat wopp jeex yii lu ci fees day yàq buñ ci boolee xool bu baax bët yi ak nopp ya ni ko yonent bi diglee sallallahu alayhi wa alihi moo bañ a doon borom ñoom bu dagg bay nangu ca kanam ba wala fa tolloog bopp ba wala borom bu xott ko bu jëm ñu gën a baaxati ci ayib yépp nag ju ak ju feesul mooy muxtaar la lii nag day fekk tabaski mi egg ci ci nag war a egg bu dee xar lu néew néew am juróom benn weer am na ñu ne juróom ñetti weer am na ñu ne fukki weer am na ñu ne mu am at bay mu dugg ci ñaareelu at nag mu dugg ci ñetteelu at bu duggee ñeenteel mu gën a ci gëléem mu dugg ci juróomeelu at juróom juróom-benneel ca sawaal du fi jàppandoo bu baax waaye guddi bokku ci bu sawaal jotee tey li dale foofu ba jant bi so mooy ñaareelu daraja yor yoru ëllëg ba sawaalam jot topp ci yoo réere gannaaw ëllëg ba sawalam jot topp ci ëllëg ci gannaaw sawal nag kum jàppale ci loon kenn gis ne bu ko deful ba jant bi so def ko di ko jàppale gannaaw ëllëg ca yoor yoor teraw tee ñu jàppale ko ku xamul it moom xam na yàlla xam na kooku lan la ko def balaa jant bi so ëllëg di juróomeelu daraja bi bàyyi ñeenteel bi di yoor yoor gannaaw ëllëg ngir ngànt ci gàttal li leen tënkoon ci fukki fan yi ak ci bisu tabaski bi di bis bi ci fés yàlla na leen yàlla yàlla nañ leen yàgg a fekke te yàgg cee defal yàlla lu ko neex léegi ñu jox kàddu gi al imaam al ci lii ñu ko wutu wa abdullah an yuayidahu wa yansurah wa yaxfadahu wa yasturah wa an yutiila baqaa'ah wa an yujawwida